Et moi, c'est bon ah am ay serem seen condition dafa def condition baaxul asalaamaaleykum mbooloo mi ñoom ñu leen di nuyu di leen ziar eh, 1, 2, bu ñu génnee li ñuy njëkk a def mooy ginnaaw bi ñu gisee seen njaboot ak seen xëy na staff politique ñëw jàkkaarloog askan wi ngir ñoom aada

après des mois de détention. Notre candidat allons prendre peut-être euh, trois à quatre questions des journalistes avant de clôturer l'événement. Je vous remercie. Donc, euh, nous allons peut-être démarrer ici avec une minute de silence pour les victimes, une minute de prière.

sans plus tarder, nous allons enchaîner avec notre cher leader, le président Ousmane Sonko. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi am mbégte bu rëy rëy rëy ci teewaat fii. jàkkaarloo jëm yi ñu jàkkaarloo. waaye ah, mën a sànni ay kàddu wax ak mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais bi yëpp. ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci. xeex bii nga xam ne moom lañu sumb ñun ñëpp te jubluwuñu si lu dul luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt du ma fëggu du ma borom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye a shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci ñu tey rek ñu ngi yokk ñaan yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yal yàlla defal leen ci këru barsaq yu yaatu yi di masaw ñi ci gaañu bi léeg-léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu peuple sénégalais bi wax na ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gars yi waaye nañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye na wax ji mën naa bañ a gudd parce que nous avons une élection à gagner et chaque compte moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la. individuellement ñëw jàpp ci coalition Diomaye président ca boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñoo ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañ jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy naw la nañu ñëpp xam ko suñu digganteel weesu na partenariat muy la doyen Habib si fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam yi ma mooy li jiitu bi lu bëri xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ci teguñu ci yoon conseil constitutionnel nee sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am na ra transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article 41 du code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko radier te loolu respecté te conseil constitutionnel li def da koo def li ci nekk yëpp xam nañ ko donc soo amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen leneen lu ci laxasu yenn saa yi ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption la ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéey jarul jaajëf waaye comme tàmbaloon nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demande tey conseil constitutionnel da di ko demande président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce pays ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a nat koo xam ne nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état bi yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek a ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xeebuñu kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu rek mooy de 60 pour cent incha waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax dañu gën a fegal na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur ne ñëpp jëli seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg a def te mu jig mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko ko voté ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yenn fa ba ngoon ku ñëw bëgg a def naka sa noonu ngeen digaale ko moom ba ñu dépouillé ba signé PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seen i PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def ñu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam yomb foofu mu xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ci gaje ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee waroon contesté man lii la yàlla may nañu président Diomaye Diallo may ñu président Habib si Diallo may ñu président Cheikh Tidiane Gueye Diallo kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri tey may dalal xelu ñëpp nii fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bëri yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am walla dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattoor nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottale li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti bi nga xam ne à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppeeku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fathu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjantelu Hudaybiya ndax xam ngeen ku day bi jamono ji màkka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina métti na woon xeer yi xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee moom fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Hudaybiya yéefar yi takk arme ne su ngeen duggee ñu faagaagal mu si signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans bi mu defaru ci defar ci armée defar ci société ba keroog bi mu jubloo ci Makka mi ngi woon ci. jiite armée bu mat dix mille te guerre amul fi mu ne nii nag am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre mu des nag élection bii ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll léeg-léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y aura pas de vengeance il y aura justice nañ ci jàngal dafa am loolu xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp neew nag ni impunité totale dina am waaye ci defoon na ma lii faw ma fay du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu di daw ci mbedd mi elles seront très tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñoom ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mës a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo la waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu ko élection bi mun leen ko laaj bañ ma ne il faut ñu reporter bi ndax yow ak diw di fa ngeen bokk ma ne sama bokk élection mënul justifier report élection sama bokk élection ni Sénégal ba mu daj am na ku mu gën a mérité nekk candidat man waaye nit ak sa yéene yàlla ak ku ko xamul rek da sonn born to be président xam nga la ñuy wax madame yéen ñu dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko def. idi idi kon lu ñu mën def pour élection bi bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu la déposé recours tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d' enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel. bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy nii ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa dama bëgg nga wootee anciens. amis du PDS ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus mu wax mu jox ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb lu ma taaree tere dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci laa ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëggu mu ñu jaar foofu. peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité agir mais yow candidat la boo déposé ñu ne tu as qualité agir kon bul déposé dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñi doon yónni ci man ñuy wax man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa bu démissionné ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw. mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rabattre carte yi kon bu ngeen gisee may yi mooy wax ju bëri na Sénégal nag moo di demee wax ji bëri na da ngay gis ku la xamoon xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nak boo ko wóoroo da ngay def ni Aboubacar defoon. biñ ko nee sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé lutti moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg waaye nit booy wóolu tànk yaa koy gis ñàkk koo gis mun a jaaral nii nga ne noonu noonu kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egsi fii li wax nii am na écart bu xam suñu diggante et c'est tout normal mooy Pastef dañ koo somb pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñu gisuloon lu dul xeex ak défendre bu ñu continué woon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises seul parce que mënu woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te jumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu lu si ñu lu mu mën a def ba li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo si suñu parti ñi doon wax ex Pastef ex Pastef nañ ne Pastef donc dina war a dem tey delloo wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii waaw am na taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat yàlla ne samay biir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui li doon wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui dinañu gagné waaw par excellence suñu gagné xam ngeen ni ku fi njëkk toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi su mboon mu yeggale ko kon Maag Basirou mii 10 ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bi soobee peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision yi fa ñëw gis nañu maam sama nga dim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres la de woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est-ce que est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prof ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey nañ ko def moo tax nit boo ànd ak moom léeg-léeg danga koy wóolu doylu ko buy def xamoo teeyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañuy yow wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def nool yëpp nit ñi ñibbi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg suñ defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpellé leen ministre de la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen dig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk. yow nañu réponse bi leerul voté nañu non ba jàll moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloo Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué. ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci s'est changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw naka la ñuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nañu xamee gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp. di wax nii te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog trois heures de temps quatre heures de temps je lui fais un amul lenn lu ko mës def te waxuma ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee li des léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri nañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegg ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha allah. bis ni bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewu ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencé campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si. di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidats ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii. mënoon nañ ne man sama candidat boobu la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu mën a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu ni mer naa gedd naa di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc ñu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk nit yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax ñu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat Macky Sall keroog bi mu ne man doot nekkatuma candidat dañu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xam leen Amadou Sénégalais yi question bi ñu waroon posé rek mooy simple fonctionnaire nu mu mën a yor alal gi yépp loolu rek jar bañ a votel ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu ne amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Baye jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii man warul mën a nekk président réew vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricains ay sénégalais ngi dund feneen ñenn ngi dund fii. ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxom set na est-ce que bëgg na réew mi est-ce que am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor na meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxamaana Amadou Ba mënuñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu warul jël ma dafa tegal ci suuf jiite na direction générale des impôts ma yor syndicat yàgg naa laal lu warul laal man vérifié naa entreprise bi ko ay milliards mu laal ko bu ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ko jox réew mi balaa may ne ñu ne compétence compétence la expérience expérience la ndax ndax alalu réew mi kon may lancé aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ne li ñuy wër di nga am ci nga dem ci même rangeen bi rek la ñuy dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mu ngi en danger dañ ñoo rax wax ana ñan ñoo leen rax ñun ñi deewoon ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal nekk seen loxo ñu gi sànni ñu ci biti ab terroriste ñu ko génne nii ana ñan ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxatu ci yooyu la man tey moom la ñu jël bu ko def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme dafa nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tampale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fekk ñu wax nañu def li nañu def nii mais le fait que ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord uñu sénégalais yëpp jóg sénégal yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ne seen gannaaw di leen financé ay terrorisme ak yooyu nañu respecté Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats la kon nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne. parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñu ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am quinze pour cent ci réew mi mënu ko am waaye fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président de la moo tax il va falloir qu'on fasse large front un barrage contre ce qui bi incha dañ koy gagné di dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est au premier tour bu daanee nag damay bañ a def sama candidat bi damaa bëri wax waaye dama leen nangu. version français bi sax moo ko def damay bàyyi président wax fi may daane leen mooy ci candidat xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kese léeg kenn ku nekk ñun dina am ay seytaane muy sa muy ay nit yu ñëw di wax ay air primaire la ñu dong la nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce wóor na ma joxe lii bu kenn ko dénkaane nanga bi ñu di ñëw di wax ko defee soo wetee ne a'uuzu billaahi bu ko nga gis sa bopp li ma def man mënoon na tombe ci biirum Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci Maimouna Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un de mission parce que dafa sa ma seeti ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et ceci et cela mu ne ma bu soobee yàlla noonu laa koy def te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moom mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko moom c'est un homme de mission ma seedeel ko ko noonee laa koy seedeelee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma seetaanee bàyyi bi ak tagal bi dafa mu dem dañ ngeen di fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay da buuj nii mënoon na nekk candidat grâce su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombé na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy Diomaye lu du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb it ñoo ne woon ba ndogoonoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di ne ko saa yi demal defari sa bagage da nga defar sa sikkim dina <laughs> alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñuy waxtaan ci li nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallaahi politique su dox sama diggante ak yow ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yow mi la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ma bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax bi man nag Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom war nga tiital na gaa waaye ma ma bëgg a seede ni gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama reetaan bu guddi gii li mu nekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii Ibrahima bu ñu jëlee affaire bi damay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen andi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetluwaat ma ne ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président. mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw wax rek li muy ne ma président man dama am kersa ci ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mun a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xel gisagu ko loolu ci mbindam la may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaatee Sénégalais yi Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak Sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dina ci doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi. dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix lañu am boo gisee xalaat yooyu am mooy président présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi ne nii sonn na bu mu sonn yow ñu ne ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président. ndax boo jëlee réew mu mel nii France ba 2007 modèle bi dañu amoon à partir de 2007 dañu def seen réforme mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de dañu resté ci c'est le déterminant du gouvernement qui coordonne exécute moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbbu mu tàgg bagage kon ñaar mun na soit ñu am vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boole ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice président bi daanaka il est là la suppléance au cas et selon la nature de ses relations le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom. pour rééquilibrer conseil de bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ne nag ci mandat bi probablement ak président Diomaye damay décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel bi bëgg a daane rek mooy mbirum koppar question franc CFA ce que je veux dire sur la question du franc CFA parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie. et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que

qui fait un ensemble de plus de millions de kilomètres carrés, plus de millions d'habitants, donc un marché qui a potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monde. Donc, c'est bien qu'un détenu a des, le programme a à, à, naviguer une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, sur la base ressentie de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'il ne s'adresse pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française, je laisse à, notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ousmane Sonko. Euh, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. su ko defee mu waxtaan ak askan wi ci koñ yi nga xam ne tënk na ko ñu mën a jàpp ne daanaka mooy première prise de parole officielle en tout cas après avoir été désigné comme candidat comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique en progrès monsieur le président vous avez la parole Merci Je voudrais, dans le siège des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader tous. Je voudrais dans le même sillage m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ses frères qui, dans les jours du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus des politiques. Beaucoup d'entre eux n'avait même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Diagne et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Sur le président Sonko, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. il y a eu la coalition son coprésident. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye Président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. Je rappelais ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mamagirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de c'est ce projet-là qui nous faisait aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Et ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en trois clics

tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin vous. C'est un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient si tu ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit mais pourquoi J'ai dit parce qu'on pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi en toute responsabilité donnez votre accord pour que je puisse contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky en plein Covid, a décidé d'aller à Kafrine, et pendant en plus le Covid-2, et à Matam, Fouta, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort de porter le bracelet. le, le, rouge en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage matériel. Les résultats, nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse là qui allait nous mener forcément aux événements de juillet 2000, de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du mars Vous avez dit que le président Macky il reste deux ans. Et que ces deux ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays en paix pour qu'on à le travailler. il y a une autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'elle n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le en prison parce qu'on l'a proposé. Après deux mois d'incarcération, Ils sont venus me dire, ok, que Je dis que le bracelet. Pourquoi Parce que je peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h, à a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après ça en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en président Oumou pour dire à quel point il de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de PASTEF et de qui est par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin au le janvier vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais parce que j'avais un à poser la question du plan B et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. Je rappelais votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes un dialogue, il y a toujours quelque chose qui reste. J'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Présent, vous m'avez dit de ne pas parler d'Amadouba. Mais comme généralement on est soutenu, et qu'on n'est jamais d'accord, comme si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce, dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Madouba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des, impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en vous pourrez toujours vérifier ça, Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wale Djoubodjan et Eliman Kouy et consorts a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadouba décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. y a eu, la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, euh, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. y a eu un récupérage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadouba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que c'est pas Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en, en, a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marissagna pour qu'il une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de milliards qu'ils ont abandonné en ne milliards. <clears throat> Au même moment, l'ONG africano-américaine, si je trompe pas du nom, le nombre de morts à la Méditerranée à On abandonne 100, euh, milliards pour milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadouba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadouba, personnellement, j'en veux pas. Je vous parle d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en Cuba, d'une expérience dans les malversations, les détournements j'en veux pas j'ai décidé pendant 15 ans que j'ai été orthodoxe vertueux sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de, travail et de vie Il a encore plus grave nous concernant. Quand on a, vous avez, quand vous nous avez le projet de réforme du système de rémunération aux impôts, et qu'on a achevé la réforme était question de transférer euh, le projet au ministre de du budget d'Aval Abdullah Diallo qui avait dit si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, j'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous on avait même attaqué ça dans l'intranet le, le, le, de la DGB. y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lesquels vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du janvier je me rappelle, on a reçu la GPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous avez dit non, personne ne doit mourir, parce que si même je n'étais pas vous devez en mesure de continuer le projet. chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, c'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, c'est pas vous. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail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

Et ils font les choquer, non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, nous devons être en de chercher les voies moyens. Dans le cadre de la CDAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet, Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce point, extrêmement important de, de, de nos souverainetés et particulièrement euh, intéressant euh, sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le siège de la proposition qui a été faite en

Et hier, un mois, 15 jours euh, hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant tu, on va réduire tes visites, mais tu ne appeler pour parler de politique. comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il au téléphone J'ai un directeur de campagne, j'ai un mandataire auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un autre représentant auprès porte-parole, j'ai des leaders dans coalition, J'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour être ma coalition. Vous me dites que je ne parlerai pas de contenu. Je parle de quoi alors non, Si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont, on vous donne le téléphone, mais à défaut, on vous donne plus le téléphone. Bon. La seule option sur laquelle vous avez une maîtrise, c'est de ne pas vous donner le téléphone. Et si vous me donnez un téléphone, je parlerai de ce qui m'intéresse actuellement et c'est ma candidature et c'est une activité politique parce que je suis là pour des, pour, pour des motifs politiques. Donc, ya des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement, comme on l'avait fait en 2019, discuter à bâton rompu entre vous, le candidat que je suis, d'autres personnes et même les leaders, pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité. Mais sur le plan de l'idée générale, compte non tenu de toutes contraintes qui peuvent intervenir antérieurement ou dans le process, je pense qu'on né sur la même ligne directrice sur laquelle nous voguons depuis notre entrée en politique. Et c'est quelque chose que nous partageons, je que dans notre large majorité, avec les leaders euh, qui sont de ce bord-là, qui sont d'autres bords politiques, et qui partagent le même idéal démocratique que nous, le même idéal souverainiste que nous. J'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Est-ce qu'ils ont programme Parce que le programme dit que le vice-président nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne que le président soit en tandem avec moi pour Donc, ça ne pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029.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 On n'attendra pas pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous pas encore en politique. Le projet de réforme, les, euh, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre En ce moment-là, pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le janvier 14. Donc pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était pas encore en politique. Donc ce constat-là, si dix ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la, Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui, ce qui m'intéresse. Il faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du, du, du, du, président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la constitution de 2001 même procédait de cette logique-là de renforcer le gouvernement et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait ce, rééquilibrage-là entre le président de la République le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à nous en tant que de la République, ce sera de nous délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous, ma, euh, Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qui a des, des, aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence, qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste que il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, d'emplir correctement ses missions, et surtout de mettre un au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces deux dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est même pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique que le président qui est le, patron de l'exécutif et donc de l'administration a dit à, à, à, aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative Et finalement, on est en train de compromettre a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce que l'on veut concentrer plus que ce qu'elle peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris comme le cas de Edouard Abib et le président Cheikh euh, Tidiane Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Les autres aspects, c'est aussi le foncier où on a une commission nationale de réforme foncière. où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. Et on ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne, qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement, Mais c'est cette réforme qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation que déjà annoncé dans votre livre Solution un Sénégal nouveau, à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui a réussi un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il pas de souveraineté alimentaire dans ce pays Et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays pour lui garantir une et en les institutions pour qu'on justice véritable dans ce pays. Il a un autre point, c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire des tours sur certains aspects du programme. C'est le point qui a trait à l'hydraulique Moi, je le pour l'avoir vécu. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas de robinet chez nous. on a pris nos, nos, nos, notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université. À un on nous a payé pris ça, je suis allé pour avoir un robinet chez nous. Et à partir de ce robinet-là, d'autres ménages qui n'avaient là se sont branchés. Ils ont accès à l'eau potable qui les évite énormément de maladies. Mais depuis qu'on les délégations spéciales sur l'eau, moi je paye plus d'eau dans la facture au village que, ce que je paye à Dakar. Alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages qui sont totalement populisés. il nous faut aussi revoir la gestion de l'hydraulique rurale parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de souffrir terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous de la prison, j'ai pu suivre vos débats. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais avec délectation Abdourahmane Diouf, le président Abdourahmane Diouf, plus euh, El Et hier, avant de sortir, on avait déjà commencé à regarder notre doyen euh, et le doyen Habib Sy. Et je vois que partout, vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme-là. Et cela atteste simplement d'un fait, pour conclure, c'est que nous tenons tous sur la même corde. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ses, ses enfants par, par, par milliers mourir dans les vagues bëggoon remercier féliciter màggal formation waaye taxul kenn xajma taxul kenn démissionné taxul kenn transhumé ku ci génn kaso ci lay gën a am détermination kon. bu dee dem nañu ba lii am nga jëpp ñëw jàpp si ñu fekk ñu nekkoon si je vous rends un vibrant hommage. te suñu seen tool suñu xel dal na ne ku ngeen mu jëm soxla Apparemment, oui, Al Jazeera. Ah, c'est pour AP. Il y a un micro-baladeur là-bas. C'est bon, donc j'ai pris deux. Al Jazeera est BBC. Ah, oui. C'est quel média Rapidement, vous enchaînez avec les, les chaque, chaque euh, une question. Voilà. Oui, Source Bonjour, je suis, bonsoir du moins. Je suis Amadou journaliste au quotidien Source A. Euh, monsieur le Président Sansogo, bienvenue parmi nous ainsi que votre candidat euh, euh, Ousmane Bassirou Vous avez parlé tout des gens qui sont venus nous voir en prison pour en quelque sorte Vous avez parlé de trois points. Tous les trois points se sont confirmés, à savoir l'amnistie, à savoir le dialogue, à savoir euh, euh, la libération de vos, des, des pastèques qui ont été emprisonné mais nous dit comment est-ce que vous avez dit que vous avez tout euh, vous avez dit que. laissez-le laissez-le terminer sa question s'il vous plaît. non vous avez dit vous avez dit que tous ces trois points vous avez refusé tous ces trois points mais vous n'avez pas dit comment est-ce que. Est-ce que ces trois points-là ont été exigés en quelque sorte par le régime en place? C'est le fruit de ce processus-là que je veux comprendre. Merci. Merci beaucoup. Babacar Albaïda. bu ma ko xàmmee fii li dafa bëri loolu ma ko xàmmee su ma ko rëccee fii gàmmu la. Bonsoir. Président Mansour, bonsoir président Bassirou Diomaye Faye. Alors cette fois-ci c'est pour AID, agence de presse américaine. Okay. Euh, um, je voulais savoir en fait. Euh, président Bassirou Diomaye Faye qu'est-ce que vous avez prévu puisque vous discutez beaucoup quest que vous avez prévu comme responsabilité une fois au pouvoir pour le président Ousmane Sonko deuxièmement aussi euh, que la caravane va va commencer merci beaucoup. merci beaucoup. donnez il a 19 ans, mais est-ce qu'il va faire aujourd'hui aussi Avec, euh, ouais, avec, euh... Silence, s'il vous plaît, on termine rapidement. Comment, comment considérez votre sentiment Est-ce que c'est le fruit d'un consensus ou vous le considérez comme une euh, sorte de victoire face au pouvoir Ensuite, monsieur Fay, je voudrais savoir, vous allez à une élection qui est ouverte selon les experts avec. Euh, pour la première fois la séance du président sortant, je voudrais savoir, j'ai entendu M. Sampio parler de victoire au premier tour, au cas où il y aurait combien de Merci beaucoup. Passez le micro rapidement. Donc, euh... Merci. Euh, je crois qu'il est pratiquement à la rupture. man moom damaa kàrmat tey à la première question qui a été posée par euh, le monsieur de Sousa euh, vous savez moi on n'exige rien on n'exige absolument rien en fait euh, des gens sont venus portant des messages. Des contacts pluriels ont eu lieu et autour de trois points de discussion. Je n'ai été voir personne qui me connaissait que je n'ai jamais été voir quelqu'un, ni religieux, ni politique, ni société civile, pour leur dire que je veux ceci ou j'ai besoin de cela. Ils toujours été ouverts lorsque des gens se présentent, nous les écoutons. Et sur ces trois je n'ai pas parlé de libération de détenus d'ailleurs, ça n'en faisait pas partie. Mais il est évident que si vous voulez décrisper, vous n'avez pas de vous dire libérez d'abord les otages politiques, ça va de euh, a pas eu d'exigence. Il m'a été dit que sur proposition, d'ailleurs, c'est comme ça l'a présenté, sur insistance de membre de l'opposition et quelques personnes de la société civile, il était proposé de reporter les élections pour notamment que quelqu'un comme moi et un autre candidat puisse réintégrer le jeu. ma réponse a été très claire. Je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Le deuxième point, c'était la loi sur l'amnistie. Ma réponse a été très claire. Et le troisième point également, c'était lié au, au dialogue national. Évidemment, ça ne s'est pas posé en termes d'exigence. Il n'y a pas eu de troc. Nous n'avons contrepartie à qui que ce Si je devais donner des contreparties, ce serait peut-être demander à ce que la loi sur l'amnistie soit votée. Je serais accepté de jouer le jeu du report parce je le pouvais. Si je voulais jouer le jeu du report, j'aurais pu le jouer. Mais à aucun moment on a joué ce, ce jeu. S'il y avait report, je serais le principal bénéficiaire. en Parce que nous avons un candidat qu'on a mis en scène parce que simplement le candidat titulaire indiscutable au sein du parti avait été écarté. Et donc, si les problèmes qui s'étaient posés venaient à être effacés, il est évident que j'aurais été de mise en scène et je le candidat du parti. Et ça ne poserait aucun problème parce qu'avec Bassirou, on a discuté tous les jours là où nous étions. Et je tiens à lui rendre parce que jusqu'au dernier moment, il a souhaité cela. Et même après, je me rappelle un jour, je l'ai fait venir et je lui fait le compte rendu de mes discussions avec l'autre camp. Et m'a dit, ma seule préoccupation, est-ce que l'affaire là pour laquelle euh, ta avait été est-ce va être, ça va être couvert par la loi d'amnistie Et il est allé plus loin. Moi, j'ai dit à nos si les crimes de sang et les actes de torture ne sont pas, sont inclus, ne votez pas. Et lui, il a convaincu un député, il a dit, j'ai bien réfléchi, c'est après qu'il m'en a parlé. Dans tous les cas, il faut voter cette loi parce que nos gosses sont en train de souffrir, parce qu'il nous faut reprendre nos résidences. Il a été plus loin que moi sur cette question-là. mais nous n'avons donné aucune contrepartie à qui que ce soit. Et je tiens à dire également, nos vis-à-vis nous ont respectés dans nos positions. À chaque fois qu'ils essuyaient un refus par rapport à question, ils acceptaient notre position et ça ne les empêchait pas de revenir pour discuter sur nos questions. Il y a une volonté de décrisper, comme on a dit. Et ça permet de répondre à notre question. Dans cette affaire, il n'y a pas de dictateur ou de vaincu. Nous considérons que nous avons suivi notre destin, nous allons continuer à le suivre. Il était dit qu'on par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi Donc, ce n'est que le destin que nous suivons. Nous nous battons quand il faut nous tout à l'heure une illustration euh, coranique, même si, si on peut Moi, je suis fondamentalement croyant. Je suis imparfait, comme chacun d'entre nous. Mais sur certaines questions, je m'en remets exclusivement à Dieu. Et ce qui Donc, c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation vais laisser Monsieur le Président répondre aux questions qui ont été posées. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, il euh, y a eu deux questions qui ont été posées par euh, M. Babacar Fall, de API, si je me trompe, qui demande quand est-ce que la campagne démarre. Dans l'agenda euh, dont nous disposons jusqu'au moment où je parle, après cette conférence de presse-là, on doit continuer la campagne parce que la campagne avait déjà démarré. Nous avons vu quand même formidable travail que les leaders qui sont ici étaient en train de faire pendant même que nous n'étions pas sortis. Ça, c'était déjà une campagne victorieuse. Nous venons juste en renfort la sortie d'ici, dès la sortie d'ici, euh, ce qui est prévu, c'est qu'on fasse une et que le convoi se brale vers Ziguinchor on devrait normalement ne revenir à Dakar que le vendredi ou le jeudi au plus tôt. Quelles sont les responsabilités que je prévois euh, pour euh, le président Ousmane Sonko Je pense d'abord qu'il ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas plus que ce matin, euh, le, la présidente euh, Madame Mimi disait qu'une élection présidentielle n'est jamais gagnée d'avance. Mais au-delà de ça, je pense que même en cas de victoire, je m'en aussi à la sagesse de Madame le ministre. nest pas qu'il y a des consultations où on ce qu'il faut donner à Damboud, ce qu'il faut donner à Elmani. Et on n'en est pas encore là. Donc je ne vais pas épiloguer sur un seul cas qui refuse à son corps défendant depuis des années, de la république tout à l'heure, ce n'est pas une question de Ousmane même les réformes institutionnelles que nous proposons sont des réformes qui transcendent nos petites personnes. Pensons au Sénégal. En cas d'élection, le président Sonko a évoqué une victoire au premier tour. Nous n'envisageons aucune autre alternative que celle-là. Nous remercions particulièrement la presse. Les conditions n'ont pas été faciles, comme vous le savez, mais finalement nous tenir cette conférence de presse. Nous remercions tous les leaders. Nous demandons aux leaders de suivre euh, Monsieur Djibril Gueye qui va s'occuper d'eux, qui va en et s'accueillir quelque part pour les gérer comme vous le savez. Donc, euh, après ça, nous allons enchaîner avec la caravane qui va démarrer normalement ici même au niveau du rond-point et cassation pour aller vers la Médina. Pour la presse et le reste, il y a des choses qui sont prévues dehors. Donc, une fois dehors, Inch'Allah, le nécessaire sera fait.